asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi euh, maa ngi euh, di nuyu di len nuyu bu baax a baax di nuyu mbokk fans sa euh, téléspectateurs yi bu baax di len balu àq aussi yéen ñëpp aussi di len bal àq aussi donc maa ngi di nuyu bu baax di len wax ni tamit ñu ngi delu wat ak yeen ci bésu alxamis bi euh boobu gisaane en direct ak yeen fu mu tollu ni ci euh bésu ci 14h bi donc maa ngi nuyu tamit mbokk yi nga xam tamit ñoo nek France ñi nek tamit Belgique maa ngi di nuyu Amadou maa koy nuyu bu baax sa mbokk bu baax euh di nuyu tamit mbokk yi nga xam tamit ñoo nek Chypre aussi maa koy nuyu Aliou maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu tamit mbokk yi nga xam tamit ñoo nekk ainsi que Sénégal fii euh, di nuyu Medina bu baax a baax a baax a baax maa ngi di nuyu di nuyu di nuyu tamit mbokk yi nga xam tamit ñoo nekk Parcelles Assainies unité 1 ba unité 26 aussi maa ngi di nuyu bu baax a baax a baax a baax ainsi que ñi nekk HLM waagu ñaay maa ngi di nuyu bu baax di nuyu tamit mbokk yi nga xam tamit ñoo nekk Castor donc euh, képp koo xam ne aussi fàtte naa ko aussi euh, xam naa ni tamit mënuma lim ñëpp aussi donc maa ngi di nuyu bu baax di leen wax ni ñu ngi delluwaat ak yéen ci bésu jeudi bi ci seen émission boobu ko gisaane en direct la yéen fu mu toll nii donc di nuyu tamit mbokk nga xam te ñoo nekk ci hôpital yi aussi maa ngi di nuyu bu baax a baax a baax a baax malade yi maa di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla aussi yàlla na yëkkati yàlla na leen yàlla yëkkati ci jàmm salaam ba ngeen génn ci jàmm salaam di nuyu tamit mbokk yi nga xam te ñoo nekk prison yi aussi di leen nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla génnee ci jàmm salaam yéen ñëpp aussi yàlla na ko yàlla def nu mu gën a gaawee aussi donc di leen gërëm bu baax di wax ni tamit ñu ngi delluwaat ak yéen ci bësu alxamis bi allo yi. allo. allo sëñ bi na def. waaw yokkal baat bi euh, wàññi télé bi tuuti ñu mën a déggoo ah. allo. allo waaw sëñ bi na def. maa ngi fi. léegi may ma tiire ah. waaw. sëñ bi. allo. Mhm. allo. donc li ma njëkk gis aussi mooy nit nga tamit boo xam ne mën naa ne ku am wërsëg nga. mais des fois aussi da nekk nit koo xam ne loo génnee ci xaalis yenn saa dafay gaaw a jeex donc bëri ay charge aussi parce que dafa ma wan ni responsable nga ci fi nga nekk te danga nekk nit koo xam ne aussi loo yore tamit mu dem neen nag su nekkee noonu la foofu da ngay génnee nu mu gën a gaawee euh, lu ñuy wax tàndarma ngay génnee da ngay génnee kilo ak liibar kilo ak liibar ah. kilo ak liibar waaw da nga koy bind nag ñu bañ ko fàtte ah da ngay bind da yore bi tax bind ko kilo ak liibar ak benn potu meew gloria ak benn potu meew gloria ok mom ngay jël nga boole ko ak kilo tàndarma bi ak liibar bi nga boole ko nga jox ko koo xam ne aussi na nekk benn vieux benn mhm. voilà ko def un jour de mardi ah mardi mardi matin inshallah, allah voilà nee na tamit nit nga tamit boo xam ne sa xol dafa rafet da ngay maye da nga généreux waaw ah, da nga généreux mais nag kilifa nga aussi ci wàllu liggéey bi nga xam ne moom ngay def allo alo alo voilà ma ne kilifa nga daal ci wàllu liggéey bi nga xam ne activité bi nga xam ne moom ngay def voilà mais nag liggéey bi des fois dafay mel ni daal euh, des fois da ngay fatigué wala mu mel ni daal liggéey bu xaw a taxaw tuuti voilà nee nag su nekkee noonu la aussi nee na xool bi neexul noonu ci cadre liggéey waaw xol bi neexul parce que dama gis daal nga mel ni ko xaw sa bopp ubbu tuuti ci cadre liggéey. allo sa sa bopp bi dafa ubbu ci cadre liggéey activité booy mëne. voilà nee na nag ci biir loolu foofu dangay ngay ut tamit benn jaaru boo xam ne xaalis lay doon jaaro xaalis. waaw jaaro xaalis tout na nekk xaalis nga def ko sa annulaire main gauche ah. doigt annulaire main gauche incha allah dégg nga. Mhm. amul dara lu maron lu nekk sa wet foofu wala benn couleur bu weex. ah. am na de waaw danga ko sol wala dafa nekk sa wet. Hmm? da nga ko sol wala dafa nekk sa wet. dama ko nee na couleur bu marron la wala weex. voilà marron bi mooy wane ni euh, da amoon ay signe de difficulté ah parce que amoon nga tuuti ay jafe-jafe de ci sa wàllu yaram wala ci sa wàllu liggéey. voilà neen nag ñaar yëpp la wone parce que même wàllu yaram bi dama gis foofu tamit dangay mel ni kuy xaw a sonn problème de respiration di nga ko am wala tamit nga mel ni kuy stressé wu. neen nag su nekkee noonu la foofu tamit euh, da nga war a génne sarax bi nga xam ne moo gën a gaaw euh, boo xam ne soo ko defee aussi yàlla dina la dimbali mooy ceeb bu ñorul na nga ci génnee kilo ak libar incha allah. voilà nee na loolu soo ko defee tamit dina baax trop dégg voilà nee na nag xol bi neexul ah, ci cadre liggéey de parce que dafa mel ni sa xol dafa xaw a découragé wala nga mel ni daal nit koo xam ne yaa ngi def mais tamit sa xol neexatul. voilà nee na nag ci biir loolu nag euh, gis naa euh, des fois sax da ngay dem ba ci biir nga mel ni ku xaw a découragé wala nga mel ni comme nit koo xam ne yaa ngi koy def te ak xool boo xam ne lu naqari daal. voilà nee nag ci biir loolu foofu tamit dangay ngay génne benn paquetu bougie incha allah nga def ko nu mu gën a gaawee kooku tamit soo ko defee dès kii demee incha allah soo ko defee tamit dina baax trop ci jour vendredi bi incha allah dégg nga voilà nee na ana Moustapha wala Mansour. Mansour Mansour ku tudd Mansour wala Moustapha. wala Mansour. waaw wala Mansour waaw waaw. waaw la. waxal bu baax. sama rakk la sama rakk nag sa rakk boobu dama ma koy waxal moom tamit na wut la mu xaalis mu def ko ci main droite am incha allah dégg parce que dama gis tamit moom des fois ay mbiram dafay xaw a dëgër trop. nee na nag na ko ut euh, mu def ko ci main droite am tamit dafa baax trop mais na yow tamit euh, lenn tamit moo nekk ci yow mooy ci affaire ay sangat wala ay garab dafa mel ni yooyu da koy daw quoi des fois. xanaa doo takku. Mhm. Ah? ma ne ci wàllu yoon bi la yoon bi ah voyage nga bëgg ma seetal la. waaw waaw ah, pourtant soo defee ndànk dinañ fa egg mais xam naa da nga yàkkamti kon xaaral ñu xool la ah. ah allah kon xaaral ma xool la yoon allo sëñ bi. waaw waaw wàllu yoon bi de nee na incha allah de di nga dem ci kàttanu yàlla. Mm-hmm. mais dafa am looy xaar. Mm-hmm. dafa am looy ciy xaar looy xaar. waaw li may xaar. waaw loo xam ne soo ko jotee ba pare après yoon bi soog a taxaw carrément. voilà neen nag ah. waaw daa am neen nag li ngay xaar dina sotti su neexee yàlla mais da ngay génnee saraxul légume ah. légume légumes. ngay génne chou. Ah, ok génne quatre chou. quatre. chou chou suppume. suppume légumes. waaw légumes ah, moom ngay génne ñeent incha allah dégg nga. nga jox ko jigéen buy dem marché. soo soo ko mënee def sax dès demain dès deme matin nga def ko incha allah soo ko defee aussi xaalis bi ngay xaar aussi dina sotti te di nga dem ci yoon. alo allo oui allo déggoo ma allo sëñ bi ma ne. Euh, yoon bi dina sotti mais da ngay génne euh, quatre soupe mais quatre choux nga génne ko incha allah dégg nga. ok jox ko jigéen buy dem marché dès demain matin. neen soo ko defee xaalis bi nga xam ne yaa ngi koy xaaraale aussi nee na loolu dina sotti. Mhm. incha allah après yoon bi tamit dina sotti. su neexee yàlla dégg nga ah, voilà loolu laa gis kon maa lay gërëm di la sant jërëjëf voilà donc di delluwaat tax yéen di wax ni émission bi émission boobu gisaane en direct lax yéen ci bésu jeudi bi donc képp koo xam ne aussi bëgg na dugg ci ligne bi na woote ci 88 628 71 71 alo oui allo alo oui alo oui. waaw ah, yokkal baat bi boog ñu jokko. na nga def waaw maa ngi dégg na def. ça va. bien léegi may ma tiir eh, yokk baat bi nag ñu mën a déggoo. voilà donc mon dem na donc euh, maa koy gërëm di vous di wax ni tamit téléspectateurs yi euh, nañu yoré bik ak nous suñuy mënu ñu jappando euh, sarax yépp aussi donc nañu woté en même temps aussi yoré bik ak feuy ñu mëna Nous aussi bu baax nañuy wañi téléphone yi nañu wañi ki bi voilà donc nañu wañi ki bi télé télé bi ñu bu 88 628 71 71 allo oui allo señ bi na nga def sant yàlla waaw may ma tiire ah waaw ah. ah, waaw dama bëggoon ma affaire yi allo señ bi waaw wala neen dina am xaliss bo xam boy booy fan yi nee na doon boobu xaalis dina sorti inshallah deng wala nga uh-huh. pour mu sorti da ngay génne ñetti kilo mburu ñetti kilo mburu kilo mburu voilà nga jox ko ñetti vieux nga jox ko ñetti paax inshallah dégg ñetti paax waaw heure boo ko defee ci kàttanu yàlla dégg ah, ah. waaw mu def tamit ah. jigéen boo xam ne euh, yéen ngi nekk wala da ngeen nekkoon mais dafa mel seen diggante aussi yenn saa day am ay problème wala mu ay

voilà donc di di wax euh, émission bi une émission l'émission Bobo Gisane en direct la hienne. ci jeudi 88 628 71 71. Allô, oui Allô Allô Allô voilà donc di delluwaat ak di wax ni euh, émission de cette émission là émission Bobo gisaane en direct la fumu oui Allô Allô. allo wa, allo wa señ bi na nga def. naka yaram bi. waaw ñu sant yàlla. alhamdulilah baat bi han allo señ bi. wa wala nene yakar yu yuy tas fi gis nene yow lepp loy am sa aduna daf lay bet wa man dama la deg bu baax yow mané lepp loy am sa aduna daf lay bet wa, ya may deg Wala, maa ngi lay dégg tuuti voilà nee na nag foofu da nga war a sarax boo xam ne aussi mën naa ne na nekk ñetti guro yu nga génne ko. ñetti guro yu weex waaw. ngay jël nga ñaan ci yàlla nga jox ko koo xam aussi na nekk benn vieux. benn vieux waaw. Ah, mais da nga ciy tari Fatiha su nekkee musulman nga ah. musulman nga voilà da nga ciy tari Fatiha benn yoon. waaw après nga ñaan sa soxla après nga joxe ko deng nga. guro yu ñetti sa ay moom tamit dem na mais moom tamit euh, mun naa ne ay mbiram aussi yenn saay dafay xaw a dëgër lool lool lool lool donc foofu aussi na génnee saraxu ñetti ndabu laax mu saraxe ko su ko defee tamit yàlla dina ko dimbali bu baax donc maa ngi koy gërëm di ko sant. voilà donc di delluwaat tax yéen di wax émission c'est une émission là émission Bobo en direct la rien, qui bosse jeudi 88 628 71 71. allo oui. allo oui. Sonne c'est dans nga def. voilà donc euh, même ma tiire carte hein allo soxna si. voilà nee na xel bi toogul sa xel bi toogul quoi sa xel bi ay werante soit ci jàng wala ci wàllu liggéey ah. voilà neen su nekkee ci wàllu jàng la wala ci wàllu liggéey nee na foofu da ngay génnee saraxu benn potu meew rek ngay génnee mm-hmm. ak ñetti sondeel nga boole ko dégg nga mm-hmm. nga jox ko benn jigéen bu xees incha allah heure boo ko defee nag baax na dégg neen nag au niveau des parent aussi nee na ñoom bëgg nañ nga réussir quoi parce que dafa mel ni daal ñoom seen bopp aussi ñu ngi lay jàppale ne noonu la allo voilà côté parent yi bëgg nañ nga réussir donc foofu aussi mën naa ne góorgóorlu bu baax dégg mm-hmm. mois bi nga xam ne moo gën a am chance si yow mooy mois de janvier dégg nga mm-hmm. donc euh, foofu tamit euh, da ngay génnee saraxu li ñuy wax tamit euh, ñetti guro yu weex rek ngay génnee ñett voilà nga jox ko un vieux wala nga jox ko un talibé hein. couleur bu rouge bi aussi su nekkee mi ngi que wet nga moko. ma ko. waaw puus ko. non des na dang koy dindi carrément voilà légui tamit euh, lenn tamit amna moy euh, di nga musa am nak ay nit ñoo xamne ñu la sori lañu ñoo mën nañ nek sa ay cousin wala sa ay ki neveu mais dal toujours da fay mel dal ay mbokk ngeen dal mais ñoo dañ la sori mën nañ nek en France mën nañ nek Italie mais toujours daal dafa nekk ñoo xam ne aussi mën naa dañ la baye xel. voilà néna nak ci biir lolu aussi euh, del saraxé ay pièces d'argent dégg

tu es courageuse daal dégg nga mais nag da nga gaaw nekk nit koo xam ne da ngay gaaw a jooy wala gaaw a gis sa bopp lu tax loolu. waaw dangay la gaaw a jooy gaaw a gis sa bopp donc loolu la ma wax foofu mais nag y a une belle avenir devant toi parce que nee na ma góorgóorlu ci li nga xam ne moom nga nekk noonu soo ci nekkee aussi di nga réussir dégg nga. Mm-hmm. te puis tamit na nga génnee sept papier blanc sept papier blanc mm-hmm. nga teg ci benn pièce de deux cent cinquante nga jox ko benn vieux. kuy jàngale alxuraan dégg nga wala tamit nga jox ko koo xam ne taalibe la dégg nga mhm. nee na incha allah soo ko defee tamit dina baax trop dégg nga mhm. ana mama wala mami nekk fi ah? nekku fi daa sori mhm. voilà nee na moom xam nga ko mami wala mama voilà donc moom salan la ah sa tànt la voilà nee na jàpp ko bu baax dégg mm. sa tànt boobu dafa baax dégg nga mm. incha allah te puis na nga góorlu ci li nga xam ne moom ngay yëngatu dégg nga ci su nekkee jàng la góorgóorlu ci bu baax dégg mm-hmm. waaw te puis tamit euh, gis naa tamit am nga ay xarit mais bariwul ko ay benn walla ñaar mm-hmm. yu jigéen ah voilà mm-hmm. nee na ana astu wala sukkay sukay la wala astu astu voilà donc moom tamit jàpp ko bu baax dégg nga mm-hmm. voilà nit la koo xam ne aussi mën naa ne tamit euh, ku baax la ci yow te déggoo ngeen daal bu baax aussi ah mm-hmm. voilà nee na nag euh, au niveau lépp loo xam ne daf lay yàqal naa la ko wax tey euh, loolu tamit day koy moytu ah mooy au niveau ci fréquentation dégg nga mm-hmm. waaw di bul def ay fréquentation yoo xam ne aussi mën naa ne si inutile ah. voilà del continuer ci li ngay def en même temps aussi nga góor góorgóorlu ci sa avenir nee na loolu moom soo ko defee incha allah di nga réussir mm-hmm. voilà ci kàttanu yàlla dégg nga mm-hmm. te puis tamit na nga moytu ay coow ay wax yu sew mm-hmm. voilà yooyu tamit baaxul ci yow dégg fi nga toog noonu am na lu verte walla weex couleur bu verte wala ban couleur la ci ñaar yooyu vert. blanc. voilà vert blanc voilà nee nak su nekkee mi ngi foofu loolu mooy wane ni tamit euh, di nga mës voyager mais voyage bobu aussi da fay ni nit mo lay yobbu dégg nga. Mm-hmm. mais nag loolu ñëwagul lolou ci kanam la quoi dégg inshallah mm-hmm. incha donc lolou aussi feeñ na nee nak euh, au niveau sa côté papa su mom euh, da fa nek ak yow wala fa la sori mais mom kilifa la de sa papa. Mm-hmm. voilà sa papa kilifa la té kilifa bu mak la aussi hein. voilà donc loolu aussi feeñ na neen tam soo mënee ut une euh, bi kii jaaroo xaalis nga ut ko baax na ko quoi nga def ko sa main droite ci annulaire doigt kii main droite bi dégg nga mm-hmm. voilà nee na loolu soo ko defee aussi baax na trop dégg ci kàttanu yàlla léegi tamit euh, lenn tamit laa gis si yow aussi lu tax nga yàkkamti réussir. dara. parce que muy gis danga mel ni ku yàkkamti am walla yàkkamti réussir ba di dimbali sa waajur yi. waaw mm-hmm. ah, loolu la mu wax de neen nag góorgóorlu bu baax de nga mm-hmm. voilà te nga bañ di foo quoi foo baaxul ah mm-hmm. voilà ci kàttanu yàlla kon maa lay gërëm di la sant donc di delluwaat tax yéen euh, di wax ni émission bi seen émission la émission boobu gisaane en direct la yéen euh, ci sur la LCS donc 88 628 71 71 alo allo oui na def. allo maa naka yaram bi. maa ngi ci jàmm. léegi may ma tiré carte yi ah? soxna si. waaw soxna si na ma gis tamit euh, yow sa lépp patience la laaj ah? lépp looy def nee na bu yàkkamti dégg nga. te da nga nekk nit koo xam ne aussi soo góorgóorloo aussi di nga réussir yow tamit parce que dafa ma woon carrément mois de septembre ou mois de novembre nee na ñaari mois yooyu sa ay mois la ñu dégg septembre ou novembre dégg nga voilà nee na tamit dina am jigéen bu mag boo xam ne da ngeen nekkandoo ensemble mën na nekk sa yaay wala mu nekk sa tante mais dafa mel ni des fois doo leen déggoo bu baax wala tamit mu nekk daal ah. sama ah doo leen déggoo bu baax de. dafa mel ni des fois da ngay day indi ay coow yu sew sewaan quoi. waa waa waa nee ne loolu xanaa fiir la wala dafa mel ni nit koo xam ne eh, da ngeen déggoo wala ci yow la. dafa fiir dafa fiir. waa voilà donc fiire boobu tamit du dara parce que man gis naa ni moom daf la bëgg nag dafa cest à dafa bëgg nga réussir rek loolu moo tax muy def fiire boobu dégg nga. waaw loolu la. voilà mais yow tamit euh, gis naa ni des fois doo bëgg a wax moom. <laughs> waaw damay damay jot moom. dangay ngay mer ba des fois doo bëgg a wax ak moom dangay mel ni ku jàpp sa ñàmbur. Mm-hmm, noonu laay nee na nag euh, soo gisee nag moom mu lay fiire cest à dafa bëgg nga réussir quoi. waaw voilà jàng bi lan la na ma gis jàng bi amoon nga ci ay tolof tolof lu xew. waaw aw woon BFEM. ah. BFEM BFEM. damaa amul woon BFEM waaw. moo tax ma ne amoon nga ci ay jafe-jafe ah? waaw moo tax tamit war nga góor góorgóorlu bu baax ah da nga war a góor góorgóorlu bu baax parce que sa tante boobu xaw ma sa yaay ji bëgg na la trop aussi parce que nit la koo xam ne mën naa ne moom dafa bëgg a réussir ah. Mm-hmm. voilà donc ci côté relationnel foofu tamit da ngay moytu de nga ah. waaw ah, da ngay moytu parce que am na góor boo xam ne daa daawoon na la di bëgg xaw ma yéen a bokkoon koñ wala yéen a bokk école mais dafa mel ni daal kooku bëggoon na la. waaw léegi euh, maire bi nag moom xam naa ni moom bëggul kooku ñëw foofu ah. ah, ah. <laughs> loolu tamit loolu tamit feeñ na voilà donc moom dafa bëgg daal nga bañ a def loolu ba nga yow nga réussir quoi donc yow soo góorgóorloo yow tamit di nga réussir de. gisul dara ci affaire voyage. bon voyage xaaral ma xoolal la ko dégg nga. teel allo. allo waaw côté voyage nee na soo góorgóorloo aussi di nga dem de mais c' est dans l' avenir parce que nee na ma di nga dem waaw. parce que am na kenn koo xam ne xawma sa waajur la xaw ma sa mag la mais daal am na ku la jege ku nekk extérieur. kooku sa lan la. sama tante. voilà nee na daal kooku daal euh, mën naa ne daal soo góorgóorloo. nga def li nga ah, xamne mom moom loolu la la wax moy jang bi neena di nga dem wa jang bi waaw ah, parce que mom dafa bëgg nga réussir BFM bi réussir bac bi après mu yobul voilà loolu la wax loolu la la wax wa voilà BFM plus euh, le bac après nga mëna dem inshallah allah kon donc mom na gor gorul bu baax baax baax ci jangam su jangé aussi inshallah yalla dina ko dimbali ci voyage bi nga xam bëgg na ko dem ay wajuram aussi dinañ ko yobbu mang koy gëreum diko sante voilà donc di delluwaat tax du di wax ni émission c'est une émission là, c'est pour tout le monde aussi donc euh, mun ngeen woote ci euh, serveur 88 628 71 71 allô Allô oui. oui allô sëñ bi na nga def. waaw maa ngi fay alhamdulilah. na nga def. waaw maa ngi fay rek alhamdulilah. alhamdulilah naka yaram bi. ñu ngi rek. voilà nga big ak feuille. waaw voilà donc pour ñu bañ a juum ci kii yi quoi. voilà sarax ya ah. léegi nag euh, li ma njëkk a gis sëñ bi. mooy dina am xaalis boo xam ne booy lijjanti la wala booy xaar la nee na boobu tamit dina sotti mais dafay jël temps tuuti. voilà neen nag foofu euh, war nga génne sarax bi nga xam ne pour mu gën a gaaw la ñetti litre meew ngay génnee trois litres de lait. trois litres génne. de lait bridel ah. waaw moom ngay jël nga saraxe ko suba suñu julee jumaa ba noppi incha allah dégg nga wala nee pour preuve que dina sorti dina am ben couleur bu marron bu nek sa wet wala bu bleu. mon drap c'est marron là ah. mon drap c'est marron. voilà donc lu marron mo nek sa wet. waaw si la toog quoi. très bien nee nak lolu moy woné tamit des fois euh, mën na né da ngay am difficulté ci sa côté liguey waaw ah, parce que dafa melni des fois do djubo ak gaay wala tamit da ngay gis tamit ñu lay xex lolu mo am de. c'est voilà donc yow dangay dem sax ba des fois sax da ngay mel ni ku xaw a replier wu wala ku xaw a jàpp sa ñàmbur. voilà neen nag noonu la wane loolu na ko génnewee koi mais nag toujours aussi par mesure de prudence da nga nekk nit koo xam ne aussi da nga am caractère caractère boobu nag moo lay dimbali. voilà nee na tant yaa ngi am caractère boobu ci wàllu liggéey bi mën naa ne tamit nit lu mu lu mu la sonal sonal sonal tamit dafay am limite boo xam ne aussi du mën a egg sa si yow daal ci kàttanu yàlla. de tenue bi kan sama xarit nee na sa xarit boobu jàpp ko bu baax ah, parce que c'est quelqu'un boo xam ne aussi soo leen di waxtaan moom daf lay conseiller yow nga koy conseiller. c'est vrai jigéen la ko am mais ji ji la quoi. ah mu nekk jigéen mu nekk góor daal l'essentiel nit la daal koo xam ne ku am solo la ko ku am solo la ci yow. te puis euh, moom ci boppam aussi euh, xaw ma nag lu mu bëgg a ax seen diggante mais wan na ma daal déggoo ngeen bu baax daal. ah. ah? allo sëñ bi. si dëgg la deug la deug la. voilà soo déggee gisee ma lay defaral loolu c'est pour mo won la ni koku japp ko bu bax aussi parce que nit la ko xam aussi amul ben problème. oui c'est vrai oui c'est vrai. sa problème problème amul la quoi. voilà donc loolu aussi feeñ na léegi tam mu def tamit euh, so xolé fi nga taxaw non amna lu ruuj lu nek sa wet loolu tamit mën nga ma ko dindil. c'est un plastique la wala lan la. voilà voilà moom dem mais quand même euh, donc maa koy gërëm diko sante donc di delluwaat tax aussi di len wax ni tamit euh, euh, mën ngeen woté ci 88 628 71 71. allo oui. allo. sëñ bi na nga def. maa ngi si waaw yokkal baat bi sëñ bi. na nga def waaw maa ngi si waaw naka yaram bi. ça va alhamdulilah. alhamdulilah. voilà. allo sëñ bi. waaw waaw maa ngi lay déglu. voilà donc li mu njëkk a wone mooy yow sa lépp tamit sa famille la wala ci ñi nga xam ne ñoom nga nekkal ñu la jege. parce que daf ma won carrément nit nga tamit boo xam ne ñoom ngay gën a xalaat wala voilà nee na ci biir lolo aussi yaal di jàppale wala nga mel dal nit ko xam aussi da nga len sóoraale. waaw loolu moom dëgg la mu def tamit jigen bu ëmb boy xam dara wala ko wasin ba nopi wala ah, waaw loolu bay nee na ci xel ku len jege la nak waxuma la yow yaal def loolu dé mais waxuma la tamit ki nga nekkal mo def loolu mais dafa am benn jigen bo xam day ñew ci koku da fay ëmb. su nekké loolu amna aussi da ngeen koy né mom ci bopam na génné benn yéré mu sacrifier ko dé ngeen. yére waaw yére mu sacrifié ko di ko gis parce que dafa mel ni daal nit koo xam ne dafa leen jege ci kër ga foofu voilà nee na tamit sa bopp dafa jaxasoo ah. dafa jaxasoo ci liggéey wala ci li ngay xalaat. waaw waxal bu baax sëñ bi. waaw liggéey bi moom dafa jaxas sa xel carrément parce que gis daal yaa ngi liggéey wala yaa ngi ci def dara mais dafa mel ni daal sa xol neexul daal. waaw dafa bëri lënt lënt daal. Hmm? dafa ay jafe-jafe. waaw ah, dafa bëri ay jafe-jafe. waaw. mais jafe-jafe yi tamit ak ay contrainte aussi dafa bëri. waaw waaw loolu dëgg la. ay contrainte ay nit ñoo xam ne bëggantewuñu seen biir. ah. man loolu laa fa gis. ku nekk di jéem a sut moromam. Ah ah, ah. ah loolu moo fa am te puis tamit ni ngeen di fayeekoo aussi dafay metti des fois. côté salaire xawma côté salaire la xawma côté fay bi mais dal dafa dafa ma won ni fofu foofu dafay am retard yenn say wala ni ngeen di fayé ko dal neexu leen daal. waaw waaw neexuñu de neexuñu de. voilà su ni ñu neexul quoi. voilà neexul daal nee na nag foofu eh, la wax sarax bo xamni dang koy def soko defé yalla mëna la dimbali aussi affaire yi am changement da ngay génnee sarax bi nga xamné moy kanjé kanjé kanjé kanja kanjé kanja voilà da ngay génnee libre kanjé libre ngay génnee. Eh, so paré ci kanjé bobu après dang koy jox jigen buy dox ci yoon ah? jigen buy dox ci yoon. wala heure boko ko rek baxna waw so paré ci lol nga génné ñetti mbaxané yu wéx moy mbaxané paa ko poté yu wéx yi. d'accord wala tamit def dès demain comme vendredi bi suñ juma jumaa ba nopi après nga saraxé ko. inshallah musulman nga. waaw waaw voilà nee na kon def ko nu mu gën a gaawee de parce que gis naa ne daal soo ko defee di nga am di nga am responsabilité de ci sa wàllu liggéey. waaw parce que ma gis da ngay découragé si liggéey bi da ko découragé totalement. waaw jafe-jafe yi metti na te puis tamit amoo ci liggéey bi dara salaire yi aussi demeewul noonu. waaw loolu moom dëgg la donc li bokk li li la kii daal dafa bëri daal. waaw loolu moom dëgg la. voilà donc foofu tamit leen laa lay wax mooy defal sarax bi nu mu gën a yi mooy ñetti mbaxane yu weex yi dégg nga. d'accord voilà pour preuve aussi li mu lay wax dëgg la soo solul lu marron aussi wala beige mu ngi sa wet aussi. waaw lu beige man sama ko sol wala dafa nekk sa wet. dafa nekk sama wet. mais jege na la de. waaw jege na ma kay si <laughs> <laughs> donc loolu mooy firndeel lii mais nag yow pour nga mën a avancer sa liggéey il faut nga jéem a am nooy defee sa liggéey ko c'est-à-dire des changements quoi cest dire changement yi soo ko déggee mooy waxuma la rek nga nekk foofu rek di liggéey ci place boobu rek mais dangay ngay a utaat leneen encore dégg nga. d'accord voilà parce liggéey bi di ci yàgg te doo ci am dara te di gis da nga sonn ñëpp yaakaar ne am nga xaalis fekk amoo dara. voilà loolu la quoi mais da utaat beneen liggéey waxuma la nga bàyyi liggéey mais da ngay utaat beneen liggéey à la ba nga am boobu nga soog a bàyyi bi dégg nga waaw mais il faut un changement de suñ la changé wu ci liggéey bi aussi di nga am changement aussi booy am voilà incha allah dégg nga te puis tamit lenn aussi mu ngi ci yow téere ndigg bi ku la ko joxoon ngi ci yow ba léegi fu mu nekk téere bi baax na de. Eh, waaw yàgg na de yàgg na de bi ma ko joxe. waaw yokatuma ko ah, dafa réer. waaw dafa nee na nag téere boobu xaw ma ku la ko defaraloon de soo fu mënoon demaat mu defaral la téere boobu dina baax trop. incha allah incha allah parce que téere bi dafa amoon solo trop bi nga koy takk amoo benn jafe waaw loolu moom ah? waaw waaw loolu dëgg la waay. Ah, amoon benn jafe-jafe de xam naa ne nag xel bi moo toogul moo tax tamit nga dindiwaat ko. non dama ko tàmm la takk sax moo tax mu ci. ah tàmmoo ko woon takk. waaw loolu moo tax ko voilà léegi tamit euh, sangat bi aussi jotoon nga ko ah. su sunguf sunguf booy sangoo. may sangoo waaw. sa gannaaw joxoon na ma sunguf may sangoo de waaw. waaw jeex na. waaw jeex na kay. kooku tamit ki la joxoon sunguf bi soo mënoon dem ci moom mu joxaat la ko dina baax trop. incha allah dina nga. voilà nee na nag ci wàllu santé na may gis des fois dangay am ay stress yu ndaw c'est-à-dire fatiguement daal. waaw parce que liggéey bi dëgg ah. cër yëpp di metti waaw loolu dëgg la. xanaa liggéey bi dafa diis. non diisul de dox ñëw dem ñëw sama liggéey bopp la ko. waaw mais sonn nga de. waaw mais. Mhm. sonn nga de. bëgg waaw bëgg tekki quoi bëgg am dara rek. waaw bëgg a tekki quoi. <laughs> voilà mais incha allah di nga tekki mais il faut nga defaat si euh, liggéey boobu il faut nga dolliwaat ci leneen c'est-à-dire un changement booy defaat wala nga jëm ko réorganiser waat. incha wala nga jéem a defaraat liggéey bi c'est-à-dire mu nekk loo xam ne danga koy organiser waat mu nekk loo xam ne aussi dafay fiable. incha dégg nga dégg nga ma de. dégg naa parce que organiser woo de da nga xaw a mel ni ku koy def nii rek mais pa kiiwoo ko daal organiser woo ko daal. waaw mais man kese la moo tax ko dafa xaw ah. man kese la daf ma ëpp doole. ah yow kese la. waaw yàlla baax na mais quand même daal organiser ko rek parce que soo ko defee organiser normalement. Ah. nga utal ko ay ah. kayit utal ko lépp. wutal ah. ko bureau. waaw ah nee na de boobaa de di nga tekki. incha allah incha allah parce que dafa mel ni loolu moo la manqué organisation parce que amoo ci dara. parce que dafa mel ni yaa ngi koy def taaba taaba nii rek quoi. Wow, dañuy soog a commencé moo tax. ah. dañuy soog a commencé. ah da ngeen soog a commencé. waaw voilà kon góorgóorlu bu baax parce que di nga dem ba après di nga jël ay nit nga leen di liggéeyloo nga leen di fay. incha allah man loolu laa gis te objectif loolu la. incha waaw objectif moom loolu la. voilà mais da nga xaw a ragal nag yow da nga ragal. waaw mais. <laughs> li nga yor lépp boo ko si defee da ngay tiit quoi. voilà lool la ko da nga xaw a ragal rek loolu rek mooy sax problème mais soo góorloo daal incha allah. ah, ah di nga réussir ci ki jàmm jaam ak salaam. incha allah donc da ngay def rek euh, li nga xam ne moom laa la wax nga def ko soo ko defee rek incha allah di nga retrouver wu daal ci kàttanu yàlla. d'accord nga jéem a organiser wu bu baax a baax a baax a baax a baax. waaw. kon maa lay gërëm di la sant. problème mu kër gi nag dama amoon benn problème si kër gi tuuti ko maa doon. ah da amoon benn problème mu kër. sama kër waaw locataire rek yooyu quoi. léegi xaaral ma xool ko ay yoon ak yooyu. mais da yokk baat bi nag ñu déggoo dégg nga. d'accord. Mhm. allo sëñ bi. waaw waaw maa ngi lay dégg waaw li nga wax tamit dëgg la de parce que gars yi dafa mel ni du ñu fay normalement. waaw fay moom kay fayatul normalement. voilà fayatuñ normalement te puis loo leen wax aussi duñ ko def. da teg voilà ñu mel ni daal nit ñoo xam ne daal mun naa ne daal dañu tëdd foofu rek quoi. léegi nag dinaa la wax sarax booy def soo ko defee aussi di nga am jàmm bu bari. voilà da ngay génne saraxu euh, lu ñuy wax euh, benn nen nga toj ko ci Carrefour mais da nga ciy tari Fatiha benn yoon. nga wax ci tur ñi nga xam ne ñoo la war a sonal ci wàllu boobu aussi nga wax seen tur nga wax li nga bëgg après nga toj nen bi. ma toj ko nga toj ko ci Carrefour. ci Carrefour. waaw incha nga def ko nga toj ko ci Carrefour incha allah dégg nga. incha allah waaw soo ko defee rek incha allah yàlla dina la jàppale bu baax. ok voilà kon maa lay gërëm di la sant. voilà donc di wa tax yeen di wax ni tamit euh, téléspectateurs yi aussi suñuy dugg ci ligne bi dañ yoré big ak pour ñu mëna bind sen ay sarax 88 628 71 71 Allô Allô Allô Allô na nga def nanga def saba va. naka yaram bi. soxna si ah. waaw. léegi may ma tiire carte yi ah. soxna si. oui. donc li njëkk feeñ ci yow mooy xol bi neexul dara. Hmm. ma xool neexul ci yow waxtaan ak ku goor ko xamne yene ngi waxtaan ci walu affaire mbeugel wala ci lo xamne dal ci walu aduna mais des fois do len dego bu baax ne nak su nekké non la fofu da ngay génnee sarax bi ni mu gëna gaaw da ngay génnee saraxu xorom ñetti mbusu xorom mom ngay génnee nga ñaan ci yalla nga jox ko ko xamne aussi na nekk ñetti mbusu xorom xorom wala nga jox ko xalé bu jigen ñetti yépp mhm. inshallah voilà nee na lu tax ngay gaaw a mer damay may gis des fois dangay gaaw a mer gaaw gis sa bopp voilà nee nag ci biir loolu aussi soo xoolee fi nga toog noonu am na couleur bu beige wala bu marron bu nekk sa wet mu ngi foofu allo waaw mu ngi fa voilà nee na nag loolu mooy wane ni tamit des fois xol bi neexul parce que da nga sa xol dafa mel lu xaw a vide au niveau relationnel wala au niveau ci wàllu mbëggeel Mm-hmm. su nekkee am na rek dangay wax waaw. waaw sa xol neexul noonu daal. waaye moom franchement dafa am vide laa wax. am na. vide un vide. waaw. ne sa xol bi neexul dafa mel ni daal da am xol boo xam ne daal vide la soit danga gisul kenn wala tamit nga am ay jafe-jafe ak góor ni mm-hmm. su nekkee am na da nga may ne am na. ndax am naa ay jafe-jafe ak seen néew ma ah, oh la dama la ne. Ah. sa diggante ak góor ñi des fois doo leen déggoo bokk wala tamit nga am benn xol boo xam ne daal mun naa ne jàppoo ci kenn. ah waaw loolu laa lay wax su nekkee am na danga may ne waaw am na voilà. Mm-hmm. voilà léegi tamit nee na ci biir loolu aussi nee na sa xol neexul. danga nga wéet. xol bu wéet laa fi gis. waaw waaw. voilà noonu la. mu def tamit yaram bu lay faral di metti comme ndigg wala ay tànk. demoon nga ci docteur yi. non tànk yi des fois day maas nii rek mais demoo hôpital. pocket yi la pocket. yi ah? ngay sol rek la. Mhm. mais mais seet bi fi waxul daal yi ngay sol de. Hmm. seet bi fi nee na des fois dafay mel luy xaw a tàng des fois mu mel ni tamit suufu tànk bi daal la ma woon. voilà nee na nag ndoxum siti jéem ko lijjanti. garab ndoxum siti demal ci euh, ñi nga xam ne ñooy tradipraticiens yi. mun nañ la ko jox dégg nga. voilà nee na tamit lu xonq li puusal ma ko foofu. couleur bu rouge bi dindi ko. couleur bu rouge bu nekk sa wet dindil ma ko. soxna si. waaw. waxuma la waaw de danga koy dindi. soo ko dindiwul du ñu mën a dem de. ah. soo ko dindiwul du mën du ma la mën a gis de da koy dindi. dindi naa ah da koy dindi carrément. waaw dindi naa ko. voilà léegi mu def tamit euh, jigéen bu tudd Aminata xam nga ko. ah. Aminata. na ko xam. bu tudd waaw. Aminata. Ami. waaw war naa xam ne. voilà su nekkee xam nga ko moom ci boppam di ngeen waxtaan ci fan yu néew. Hmm. waaw mais yow sa bopp si da nga nekk nit koo xam ne yaa ngi xalaat lu bëri ci wàllu affaire euh, lu ñuy wax affaire kii daal euh, comme exemple euh, liggéey wala tamit nga nekkoon ci dara commerce mais dafay mel ni daal liggéey bi day dox yenn saay du dox. voilà neen nag pour léegi sa mbir mu mën a baax foofu da ngay génnee saraxu fruit da ngay génnee juróom-ñaari fruit yu bokkul. waaw comme ay pomme orange mango bu mot juróom-ñaar nga jël ko nga ñaan ci yàlla nga tari ci Fatiha nga jox ko koo xam ne aussi na nekk jigéen mu xees mais koo xam ne mag la mais na nekk ku xees pecc nga jox ko ko dégg nga incha allah nee na loolu soo ko defee rek di nga gis tamit euh, di nga gis jàmm bu bëri ci côté liggéey bi nga xam ne yaa ngi ko doon def muy taxaw yenn saa muy dox voilà donc loolu aussi nee na nga def ko dégg waaw voilà nee tamit euh, dangay faral di gént ay gént yu bizarre aussi gént yoo xam ne daf lay jaaxal. est-ce que mën nga ma ci wax benn ma firil la ko. ah. nga ma ci wax benn boo ci jàpp ma firil la ko. gént yi man jàppoo ci benn. mais koy fàtte. mosoo gént di yéeg escalier wala ngay wàcc escalier. waaw waaw daf ban la ci ba yéeg bi la wala wàcc bi. attends des fois nga yéeg des fois nga wàcc. waaw waaye yéeg bi moom baax na ah, su nekkee da nga gént di yéeg après nga yeewu ci gént bi nee na boobu baax na mais gént di wàcc aussi boobu baax na da yéegoon ah, kon baax na mais nag toujours soo yeewee tamit ci gént bi boo yeewoo kii yeewoo ba pare da ngay génne euh, lu ñuy wax lu weex comme ay sarax yu weex comme soow wala suukar nga koy faral suukar wala soow nga koy saraxee suukar incha allah dégg incha allah loolu soo ko defee tamit baax na trop ci yow. Mm-hmm. voilà nee lu tax ngay gaaw mer damay gis fii des fois dangay ngay gaaw mer. Mm-hmm. xol bi day naqari rek. <laughs> waaw boobu taat ah mun naa la wax fi ngay meree de. moo wax la ko. wax ma. waaw c'est-à-dire da ngay euh, bëgg nekk ak nit comme exemple bëggante ak nit mais da ngay dem ba benn moment boo xam ne doo gis kenn kenn du ñëw. donc dangay ngay jékki-jékki di wax nit sax nga baal baal ma eggali. da ngay di ah. wax kenn koo xam ne sa dëkkandoo la wala ku la jege sax mais da jékki-jékki rek mere ko doo xam sax lan la. donc loolu nag euh, problème boobu nga am. voilà donc loolu la donc foofu tamit leen laa lay wax aussi bàyyi ko ci loxo yàlla lépp dina sotti de dégg nga. ci kàttanu yàlla te puis tamit ngay gaaw e di mer di gaaw mer bi baaxul parce que sooy nit su lay sesté aussi nga koy mere aussi baaxul de voilà da ngay dem ba kenn du ñëwati foofu wala sa xol de laa lay wax sa caractère waaw waaw loolu la ma loolu la ma wax de mmh. parce que yow da nga nekk nit koo xam ne euh, macha allah yaa ngi sant yàlla mais tamit ci biir li ngay sant yàlla kenn yab la góor bu la yab mmh. yaa dégg de Ah, voilà donc loolu moo tax tamit ku góor ku fa ñëw tamit euh, day sonal boppam rek mais après day demaat. Mm-hmm. voilà donc loolu la quoi yow nag da nga xaw a free. voilà free bi moom mooy euh, nit nga tamit boo xam ne sax xel yow lu mu jàpp rek loolu rek la. Mm-hmm. voilà donc loolu tamit war na ma ko ci yow bu baax dégg nga. Mm-hmm. voilà nee na tamit euh, bul di yàkkamti aussi lépp loo gis aussi ci mbirum yàlla la mais nag da ngay da ngay def ah? patience quoi ma ne. sa mbir bu ko yàkkamti lépp loo gis rek ci mbirum yàlla la voilà nee na bul yàkkamti même su nekkee sax am nga dara loo xam ne manqué na la wala tamit euh, xool nga ni mënul sotti aussi wala tamit yaa ngi koy xaar te gisoo nee na jarul ngay yàkkamti bàyyi lépp ci loxo yàlla quoi soo ko defee aussi yàlla dina la jàppale de parce que gis naa ni dina am góor yoo xam ne ñëwoon nañu mais tamit déggoowu leen lu mel ni ñetti góor. am na ay ay góor yoo xam ne ñëwoon nañ ci yow. voilà foofu lay waxee daal. waaw moo tax ma ne la bàyyi loolu yëpp ci loxo yàlla ah. mm-hmm. voilà mbirum yàlla la donc euh, bàyyi loolu di nga gis tamit jàmm dina am man gisuma nga am rapan ah, gisuma loolu man na ma gis nga da am danga am jikko euh, ñëpp am rab mais yow sa rab taxul ñuy wax daf lay yàqal may man li lay gisal mooy danga am jikko jikko allo danga am benn jikko bu nekk ci yow moo tax tamit képp koy nekkal tamit du yàgg ak yow. da ngay gaaw a mer gaaw a découragé. te bëggoo tamit góor di la def looloo bëggul loolu laa wax ma ne jikko boobu nga am. voilà loolu moo tax tamit doo yàgg góor ku ñëw day dem. voilà loolu rek la mais jàmm ak salaam rek la te puis tamit nga bañ a yàkkamti. voilà ah? ah voyage. Hmm. xaaral ma xool ko. soxna si. waaw gis na yoon mais yoon bi tamit dafa xaw a dëgër tuuti. waaw nee na dafa laaj sarax boo war a génnee pour loolu mun a sotti. Euh, da ngay génnee sarax pomme de terre. ñeenti pomme de terre quatre pomme de terre. quatre pomme de terre. waaw. Hmm. quatre carottes. Hmm. ak quatre nawe. nawe. Hmm. quatre ah. nga boole lépp nga jox ko jigéen boo xam ne aussi na nekk jigéen bu ñuul. nga boole loolu yëpp nga jox ko jigéen bu ñuul incha allah. incha allah soo ko defee allo. soo ko defee incha allah di nga dem. mais nag yow sa dem dafay laaj dem la boo xam ne liggéey la laaj de parce que wanuma rek ngay dem rek ñëwaat dafa ma won ne daal da ngay dem liggéey wala tamit mu laaj loo xam ne daal mun naa ne activité boo fay def. inshallah de nga. Ah. voilà donc lool rek ngay def nga saraxé ko mën nga ko def n'importe quel jour hein ah. mhm. inshallah ci walu santé nak des fois da ngay faral di fièvre de. Hmm? santé. pour bu yaram na gis da ngay da ngay faral di fièvre wa sa yaram bi yëpp day metti. waaw deun la wala wala ndig la. deun mo lay metti wala ndig des fois sama sama dënn waaw dënn bi daal laa gis. kooku nag il foo nga yóbbu ko hôpital de bu ko négligé de. Hmm. waaw da sëqat wala dafay metti rek. voilà nee na def su demee nag ba mu yàgg mun na jàpp sa yaram bi yëpp ah parce que loolu la moo wax. Hmm. waaw il faut nga dem ci docteur yi de il faut nga dem hôpital de bu ko négligé de allo. waaw parce que amaat na beneen jigéen bu boo xam ne feebaroon na loolu loolu yàgg na. Mhm. xaw ma ndax kook sa maam la wala sa yaay la wala ku la jege la wala tànt mais amoon nag kenn ku nekkoon ci yéen foofu tamit feebaroon na loolu. parce ma gis benn jigéen boo xam ne yaramam yépp a doon metti mhm. yaa may dégg. waaw voilà donc loolu la moo tax ma lay ne yow tamit fajul. waaw mhm. ah, bu ko négligé de demal ci euh, hôpital quoi moo gën. waaw parce que soo ko continuer noonu day dem ba après mën na la sonal indi la beneen feebar wala beneen effet secondaire aussi boo xam ne xalaatoo ko woon dal allo. allo léegi sama côté liggéey na. côté liggéey. Hmm. doo bàyyi ma eggali lii tuuti wala ma loo ma xool. waaw waaw voilà nee na tamit da nga ragal dem hôpital lu tax loolu. Hmm. ma ne allo allo set bi nee ma da nga ragal dem hôpital lutax ragaluma de ah kon lutax do doo dem ragaluma de mais dinaa dem wa dem parce que dama gisul nga dem motax carte gi daf mané même suma ma la ko waxee aussi dem bi du yomb de allo wa mané dem bi du yomb de lolou set bi wax non dama ne taayal la gën a nekk ka bañ a dem. ah. taayal taayal. ah da nga waaw mm-hmm. ah, moo tax ma ne la dem bi du yomb <laughs> kon kañ kon kañ mu ngi noonu. Mm-hmm. voilà léegi nga nekk côté liggéey bi ah? ah. ma xoolal la côté liggéey. waaw waaw. Ah. <coughs> mais liggéey bi baax na de mais des fois da ngay sonn ci liggéey bi. Hmm? ma ne liggéey bi baax na mais des fois da ngay mel ni ku sonn. waaw. voilà liggéey bi da ko arrêté woon tuuti wala danga demoon ba benn moment boo xam ne liggéey bi moo doxul woon bu baax. non dama woon dama da nga voyagé woon. Mm-hmm. ah moo tax mu amoon arrêt daal parce que dafa defoon meloon lu amoon arrêt wala pause. Mm-hmm. voilà donc foofu tamit da ngay génnee saraxu ñetti ndabu laax nga def ko dimanche incha allah dégg nga waaw dimanche nag danga koy def ci ay vers coup de 17 yooyu 5 yooyu ci ngoon. Mhm. incha allah soo ko defee aussi baax na trop de parce que nee na mhm. euh, macha allah ku mën di xaalis nga nag yow. Mhm. waaw nee na soo defee na ñetti ndabu laax yooyu tamit baax na trop. waaw te na nga góorgóorlu bu baax aussi quoi parce que sa wàllu santé daal góorgóorlu ci baax su nekku loolu da ngay dem ba après doo mën a def dara de. kon daal tout va bien waaw tout bien sauf la santé. Hmm. santé bi daal foofu laa gis daal foo xam ne daal mën naa ne daal ça va pas du tout. Hmm. waaw kon nag il faut nga jóg nag ci sa lu ma war a jot fan waaw war nga jot dara parce que dafa ma won ne carrément euh, nee naa la ah. sànq sax maa lay tooñ ma lay ne ku bëgg xaalis nga mais déggoo ma ah. sànq maa lay tooñ ma lay ne ku bëgg xaalis nga. comme ñëpp quoi mais quand même man gis naa dinga jot dara. waaw mais soo jotee loolu ba pare après yoon bi day taxaw day voyage voyage bi day nekk daal. voilà mais quand pour nga jot loolu aussi dafa def sarax. waaw na gaaw kon parce que gaa yaa ngi woote. allo waaw soxna si na nga def. maa ngi fi naka yaram bi. alhamdulilah. léegi may ma tiire carte yi ah. allo soxna si. waaw maa voilà nee na yaakaar yu tas bëri na ci yow. Mhm. waaw nee na nag euh, yaakaar yu tas lépp looy am daf lay bet waaw mu def tamit euh, nit nga tamit boo xam ne respecté nga parents yi bu baax waajur yi. Mhm. waaw loolu tamit am na solo allo oui. allo ma ne nit nga boo xam ne da nga respecté parents yi bu baax a baax a baax. waaw waaw nee na loolu tamit macha allah am na solo trop. voilà nee na ana góor bi nga xam ne da ngeen nobante wala tamit da nga ko bëgg parce que dafa ko wane fii carrément. allo. dégguma la de. allo ne ana góor bi nga xam ne da ngeen bëggante. waaw. mu ngi fi. ah déedéet. gisaguma ko ne gisaguma ko. ah dafa ma wan ni relation koo nekkal de koo xam ne daal mën naa ne bëggante ngeen. waaw divorce moo fi ah? ah. divorce la. Hmm. waaw mais divorce boobu su nekkee tamit lu war a am la aussi dafa mel ni daal di ngeen. Ah? egg di allo wi. allo. mu ne su nekkee divorce la. waaw. waaw nee na tamit di ngeen xaw xuloo nag xaw ma xuloo boobu nag ndax paasewul parce que dafa wax xuloo xaalis wala xuloo loo xam ne daal mën naa ne tamit des fois du la jox dara. xaalis la. des fois du la defaral dara. affaire xaalis la. Mm-hmm. waaw loolu la ma wax de nee na ma daal xuloo la boo xam ne daal xaalis bu bari la daal wala tamit daal déggoowu leen daal ci wàllu xaalis. noonu la. xaalis bi bëri na. waaw bëri na de. yaa ko moom wala moom parce que ñaar yëpp la wone. Ah, waaw di dem tribunal de. waaw c'est so len demé tribunal mom du la nangu jox xaalis bi moom dafay bañ. du ko nangou joxe. du ko nangu joxe day bagn carrément. Mm. parce que mom tamit day out ay avocat pour ñom ñom tamit ñu mën ko jàppale. waaw dafa def appel moo tax dañ ko dama ko gagné mu def appel. wala moy limu la wax nak wala tu as vu xam nga kon donc dang ko gagné mais da ngeen demat appel donc xam nga ba léegi tamit nanguwul nanguwul li nga xam mom nga wax. wala mm. léegi tamit man lenn rek la lay wax sarax bo xam sum la ko joxee inshallah allah xaalis bobu tamit ding ko jot ci carte nu yalla dina ko jot. wa legui da ngay deglu nga def sarax bi nga bind sarax bi bu baax bi mu lay jox. wa ban sarax ngay genn wala da ngay genné saraxu ñetti mètre per cal ñetti mètre per cal wa mhm. ah ñetti nen yu weex. nen yu weex. yu ñorul. ah yu ñorul. waaw. ñett. ñett. waaw ak ah, ñetti pomme yu verte. waaw yooyu ngay boole lépp nga jox ko koo xam ne kuy nodd ci jàkk la ma jox ko kuy nodd ci jàkk kuy kuy nodd ci jàkk voilà ah. mais soo koy joxe na da nga koy joxe suba teel suba teel mooy heure six heures matin six heures matin boobu ñuy julli suba teel waaw waaw moom ngay def noonu dégg nga nga jox ko ko soo ko defee hmm. incha allah de di nga gañewaat ci kàttunu yàlla te di nga jot xaalis boobu yëpp ci kàttunu yàlla dégg nga dom bu góor bi am nga ko. han ah? doom bu góor bi am nga ko. waaw na naa doom bu góor waaw. ñaar la wala ñet am na ben bu gor ak kenn ku yeen wala donc lool la mo wax dal mais doom bu góor boobu aussi turam kawe na de. Hmm? turu kilifa la yoré wa nu mu tudd. Rahman Abdou. wa turu kilifa la de. waaw macha allah mais kooku dang ko wutal la mu njaxas. waaw mu def ko ci main droite am incha allah dégg nga te puis euh, lenn tamit dinaa la ko wax affaire doom yi tamit di ngeen ci am problème tuuti. affaire doom doom. waaw. waxu doom boog di ngeen ci am tuuti problème. ci sa tribunal bi. Ah? ci affaire xaalis bi. waaw affaire doom daf ci na am dina ci am ay waxu doom. après pour kon loolu la n'est-ce waa xëccoo doom loolu la ma wax nee na ma daal waxu doom aussi dañu ci am affaire wu. waaw waaw la ma wax macha allah dégg nga allo. waaw tamit mu def tamit couleur bu marron bi xanaa danga ko sol walla beige. waaw. si am na fa de xoola bu baax. je xam naa pañe ah, la. waaw. mais sa yaram normal mais déplacé sa yaram am na lu beige wala marron xoolal bu baax. marron wala waaw amul marron tuuti wala beige. Eh, <laughs> kon daal am na kay kon maa la gën a xam li voilà léegi yow man maa la gën a xam li ngay sol n'est-ce pas. waaw sol naa ko mi ngi nii waaw. <laughs> léegi loolu moo may wan ne yow euh, euh, problème bi sa problème la macha allah te puis yaa ngi ciy jàpp. problème bi problème bi di nga ci gagné incha allah de nga. dina dina dañ waaw waaw di nga dina di nga gagné de. jërëjëf. waa ah, na gaaw parce que gaa yaa ngi ci ligne bi. waaw mi ngi gaaw waaw mi ngi mhm. waaw soxna si na nga def. waaw allo. waaw na nga def soxna si. maa naka yaram bi. alhamdulilah léegi may ma tiré carte yi ah. waaw soxna si. waaw. waaw ah, xel bi sa xel dafa jaxasoo de soxna si. nee na sa xol dafa jaxasoo te puis daaw nga di dimbali ay góor mais ñoo dimbali yëpp aussi da ngay gis tamit ñu jaar la ginnaaw quoi duñ la da leen dimbali ba pare après ñu bàyyi la. voilà mu def benn vide aussi bu may gis au niveau tamit ci li nga xam ne sa biir xol. parce que allo oui. waaw mu def tamit sa neexul daal. waaw voilà léegi tamit euh, nee na foofu waxu xaalis aussi di nga ci xam dara wala yow nga ci toppatoo benn xaalis. waaw nee nag su nekkee yaa ngi ci nee na xaalis boobu dëgër na. dëgg la voilà nee na nag di nga dinaa la sant ay sarax yooy def soo ko defee aussi su neexee yàlla yàlla mën na la dimbali mu sotti. dangay génne benn kilo banaan. benn. kilo banaana banaan. kilo banaana waaw. moom ngay jël. nga jox ko koo xam ne aussi na nekk ku mag koo xam ne góor màgget quoi ku màgget. koo xam ne dara dalu ko nag ah. voilà nee na nga def ko soo ko defee rek incha allah xaalis boobu ngay yaakaar noonu. Mm-hmm. te muy war a jóge ci loxo ku góor nee na dina sotti. waaw incha allah dégg nga. mu def tamit nit nga tamit boo xam ne daawoon nga def ay déplacement. ah. daawoon nga di voyager wala ngay déplacé wu. waaw mais yàgg na waaw moo tax ma ne daawoon nga di déplacé. voilà donc dawon nga di déplacer wu loolu moy yag na rek donc euh, fu nek nekk nii aussi déplacement yo aussi dafa wagneku donc da nga wara guenné sarax bi nga xamné ne gëna bax ci yow nga def ko moy kanjé dañ ci guenné kilo ak liber ak ben paquetu sucre bu ndaw mom ngay bolé nga jox ko ko xamné aussi na nekk jigen bu xess heure boko ko defee baax na incha kon ma lay gërëm di la sante voilà donc di wat tax yeen di wax ni émission bi yéen ko mom allo yi. allo. na nga def. maa soxna si na def. Euh, kii la de góor la de. ah góor la kon wax kon baat bi daal moo neex. <laughs> waaw baat bi moo kon dëgëralal baat bi ñu <laughs> mun a jox ko kon ah, def sëñ bi. waaw. ça va. ça va bien. léegi may ma rek ma tiire fii allo sëñ bi. waaw voilà donc na ma gis tamit yow tamit sa xool neexul dara quoi soit ci wàllu jàng wala ci wàllu liggéey booy def. waaw ci wàllu jàng. voilà nee na ni jàng bi des fois da ciy am ay day pénible daal jàng bi day metti ci yow. waaw day metti man kay. nee na nag foofu euh, leen rek laa lay wax nga def ko mooy da ngay benn nen bu weex nga toj ko ci Carrefour benn nen. ma toj ko ci. Carrefour c'est le bouillon. waaw nen bi nag dañ ciy tarifaat yaa musulman nga. nen bu. mu ne musulman nga. waa musulman laa koy. voilà da nga ciy tari Fatiha benn yoon. benn Fatiha. waaw nga ñaan sa soxla ci wàllu jàng bi. waaw nga jël nen mi nga toj ko ci Carrefour dégg waaw nee tamit xale yu jigéen dañ lay topp lu xew. xale ne déglu ma bu baax mu ne xale yu jigéen dañ lay topp lu xew. ah dara. ah nu may gis daal foo nekk rek dañ fay nekk. ah loolu laa nekk si man. ah daa nekk ci yow. waaw jigéen bu xeereer bi xam nga ko. xam naa kay. voilà kooku nopp na la de. Ah. waaw waaw mais nag doo yàggal kenn aussi ku ñëw day dem. ku ñëw day dem waaw loolu dëgg la. ah dëgg la. waaw. Ah. <laughs> waaw nee nag yow sa jafe-jafe yi nga mën a am yépp jafe-jafe xaalis si la bokk. waaw. parce que nee na pour nga am xaalis day metti day metti kay. voilà nee na nag foofu tamit dinaa la wax secret booy def da ngay wax euh, da ngay bind li ma li nga koy bind yor nga Mm. yaa waxaab. yaa waxaab. yaa waxaabu. yaa waxaabu. waaw ah, da koy da koy wirda ah. waaw da nga koy def 33 fois. waaw 33 fois. voilà chaque matin nga def ko soo ko defee rek dangay gis balaa ngoon di nga gis dara daal di nga gis xaalis dégg nga. waaw incha allah. waaw yaa waxaabu yaa waxaab bind ko. waaw. mën nga ko. bind naa ko waaw. voilà incha te puis tamit euh, kii tudd euh, Astu wala Faatu kooku sa la. Aysatu wala Fatu. Fatu Fatu la sama xarit la. sa xarit la. waaw kok tamit bëgg na la de. ah waaw mais dañoo am ay Kamu jafe de. ah pesan nalo kay Pas noppee sax jigen la ko parce que nee naa la jigéen boo nekkal aussi doo leen yàgg. voilà mais nak euh, nit nga tamit bo xamné ne euh, de fur et à mesure ngay nek mak da ngay gis tamit toujours da ngay xamanté ñu bess. waaw ay jigen ño xamné ne xamoo leen woon da ngay gis toujours aussi noy gëna évoluer rek ya ngi xamanté ñeneen encore ah. waaw voilà donc loolu aussi feeñ na mais nag yow sa parent yi dañ bëgg nga jàng trop. waaw bëgg nañ ma jàng kay. waaw dañ bëgg nga réussir aussi donc góorgóorlu bu baax aussi nga réussir. Euh, li ngay jàng noonu am na calcul wala mathématique. en kay mathématique. waaw mat bi da nga ko aayul de. waaw xaw naa ci am ay jafe-jafe de. voilà nee na bu baax ci en voie de mathématique boobu ah. waaw incha allah matière boobu góorgóorlu ci bu baax parce que gis naa soo ci góorgóorloo di nga jàll li nga xam ne mooy sa examen bi nga xam ne moom nga bëggoon def. waaw euh, BFM nga nekkoon wala kii brevet xaw ma brevet wala kii bac. Hmm? Euh, classe BFM nga nekkoon. waaw classe BFM moom laay def ni bu école ubbee. voilà kon góorgóorlu bu baax ah dégg nga. waaw incha allah parce que euh, dinaa la jox secret booy def. waaw nga wut carte bi quoi as de carreau. Hmm? waaw ak ah, as waaw moom ngay jël nga collé ko nii xoolal. waaw mu nekk benn carte gis nga. waaw après nga def ko sa sa cahier mathématique. waa voilà soo ko defee aussi di nga ci am ay match ay not yu baax ci kàttanu yàlla de nga. incha allah voilà kon maa lay gërëm di la sant. waaw jërëjëf. Hmm. voilà donc di delluwaat tax yéen di wax ni émission bi ça continue jusqu'à présent donc mën ngeen woote ci 88 628 71 71. alo wi allo. allo waaw asalaamaaleykum. maaleykum salaam yokkal baat bi na def. man damaa bëggoon nga seetal ma. da nga bëgg ma seetal la. ah. da bëgg ma seetal la. waaw. waaw maa ngi nii maa ngi koy def. allo soxna si. waaw dégg ma bu baax lay wax de. ma ne allo soxna si yaa may dégg. waaw. voilà ne ma gis sa xol neexul dara. waaw dégg la. waaw ci wàllu ku góor ku la mere wala koo mere. Mm, dëgg la nee na nag loolu nag dafa mel ni daal loolu sax moo gën a tax ngay seetlu ah. waaw nee na ku góor kooku aussi euh, moom dafa lay dóor wala daf lay saaga wala dafa mel ni daal nit koo xam ne aussi doo leen déggoo ban la ci. dóor ma saagawu ma sax. waaw kon lan la lay def. def ma dara daa amoon lu ma ko wax rek après moom mu bañ ko. après moom mu mere la. merewu sax. mais daal lu ma ko wax moom loolu la bëggul. li nga ko wax loolu la bëggul dégg. waaw benn kon nag li nga ko wax foor na de metti na de.

Euh, bàyyi ci xel bu baax li nga xam ne moom laa lay ku góor kooku nag mun naa ne soo deful ndànk aussi des fois da di xaw a am ay problème dégg nga. voilà loolu la ma wax foofu léegi nag nga nekk côté jàng bi nga bëgg ma seetal la. waaw léegi may ma xool ko. allo soxna si. waaw waaw nee na yow su nekkee yaa ngi jàng nee na macha allah di nga réussir de. Mm. ci kàttanu yàlla de te di nga dem ba di nga réussir ba am sa liggéey après. Ah, waaw parce que loolu la moo wax te puis tamit nit nga boo xam ne aussi tu es mm-hmm. mais man instant yi sama xel dafa nekk doon dara fi jàng damaa bëggoon bàyyi jàng bi daal. non bul bàyyi góorgóorlu. parce que daf ma won ni carrément dangay nga intelligente mais bul bàyyi góorlu parce que soo góorgóorloo di nga dem ba après dinga amal sa liggéey ci di nga am sa ay diplôme am sa liggéey. parce que ah, parce que loolu la moo xaw ma na kan moo lay ne nga bàyyi mais kooku tamit euh, mën naa ne. moo ah, lay xam nga man dama am problème su may jàng leçon tamit damay am problème mu mokkal ko. ah waxal baax. su may jàng leçon damay am problème mu mokkal ko. da problème mokkal ko. waaw ah, mais da ngay ut kii tamit kiis rek kiis dangay dem ci sëriñ rek ñu defaral la kiis kooku tamit soo ko defee tamit baax na dangay sa xel day neex. dégg waaw mhm. ah, mais nag euh, bàyyil li nga xam ne mooy sa souci cest à euh, li nga xam ne am na loo def sa bopp loolu tamit foo nga génnee ko sa bopp nga mën a jàng. Mhm. am na looy def sa bopp loo xam ne mun naa ne entre ku góor ak ku jigéen ki ngay waxtaanal noonu wala ki ngay nekkal ngeen di coow yenn saa yi voilà nee na loolu da nga koy génne sa bopp su nekkee bëgg nga jàng parce que tant que mu ngi sa bopp aussi doo mën a jàng de. waaw waaw. voilà donc loolu la li nga def sa bopp moo bëri. waaw da ngay mën a canaliser rek ci jàng bi pour nga mën a réussir. waaw voilà kon maa lay gërëm di la sant. voilà donc di delluwaat ak yéen euh, di delluwaat ak yéen di leen wax ni émission bi ça continue jusqu'à présent donc 88 628 71 71. alo oui. allo. sëñ bi na nga def. ma tiré carte ah. sëñ bi. allo. voilà donc nu ma gis tamit euh, di nga am xaalis temps yi di ñëw wala xaalis temps yi nga xam ne mun naa ne ci biir semaine bi di nga gis xaalis bu dugg sa loxo dégg nga. Ah. mais da ngay génnee sarax bi nga xamné mo fi taxaw nga def ko ñetti mbusu soow ak ñetti guru yu wéx ñetti mbusu soow. waaw. les cahiers ñet waaw ak ñetti guro yu wéx inshallah allah ak ñetti guro. yu wéx waaw voilà néna tamit amna voyage bo bëggoon dem wala tamit mu nekk sa xel. waaw ah. neen su nekké ba légui mu sa xel néna di nga di nga dem de. waaw ah. di nga japp yoon de. waaw ci kàttanu yàlla pour preuve di nga jàpp yoon am na benn couleur bu rouge bu nekk sa wet. Ah? ma ne pour preuve que di nga dem. waaw ah. am na benn couleur bu rouge bu nekk sa wet kooku il faut nga. dindi ma laa la waxuma la rose rouge xoolal bu baax. rouge foofu. Ah, dindil ma ko couleur ban ci ventilateur bi la nekk. ci fan la nekk. ci ventilateur bi. waaw da ngay won ventilateur bi ginnaaw kon. mois de printemps la waxuma la. waaw. voilà donc euh, nee na tamit am na jigéen boo bëgganteel lool aussi macha allah te kook tamit bëggante ngeen bu baax. ah. ma ne. waaw ah. am na jigéen boo bëgganteel boo nopp boog. waaw ah. ah, waaw nee na kooku tamit nopp na la bu baax te déggoo ngeen bu baax aussi. waaw. voilà donc loolu aussi. waaw léegi waaw. ma ne. waaw waxal waxal. dama bëgg nga xoolal ci football bi quoi footballeur la. waaw mais bëggoo ma xoolal la ci lële. waaw ci gel yi. football bi football bi. <laughs> waaw d'accord may ma xoolal la bokk ci football bi. waaw neen soo góorgóorlu daal gis naa ne daal yox entraîneur bi di ngeen déggoo ah. te moom ci boppam dina la jàppale ba nga voyager ah. waaw demoon benn voyage bu xaw a gàtt wala bu sori ah demoon nga voyage bu sori wala bu gàtt amoon non non demoo fa wala région yi waaw Thiès waaw waaw kon nag lu tax nga ne ma déedéet waaw ah, mais demoo woon pour pour ñu football yi quoi waaw neew ma la ma dem ba football de waxuma la loolu voyage daal laa la wax waaw dama noo Thiès temps donc euh, nee na su nekkee dem nga Thiès euh, nee na di nga demaat benn voyage bu gudd boo xam ne aussi boobu ci wàllu football bi lay doon. te nee na loolu yaa ngi koy lijjanti te loolu yàggatul sax. waaw waaw nee na nag dafa def sarax boo xam ne moom nga war a def pour mu sotti incha allah. waaw da génnee ñetti pomme yu verte. Euh, ñetti guro yu weex. waaw ñetti pomme de terre. ah waaw ah, ngay bolé nga def ko ci benn mbuus. waaw ah. nga jox ko jigen buy dox ci yoon ah. incha nga jox ko jigen buy dox ci yoon soko ko inshallah incha yoon bi mom taxaw na ci carton yalla te di nga dem ma lay gërëm di la sante Voilà, donc di di len wax ni émission bi ça continue jusqu'à présent. Donc vous pouvez appeler euh, sur le serveur 88 628 71 71. Allô oui Allô allo. sëñ bi nanga def. alhamdulilah naka yaram bi. waaw ah, yokkal baat bi boog ñu déggoo. ah. suñ kii bi moo leerul. ok d'accord kon xaar ma yokk baat bi boog. na def saba va. voilà léegi euh, man na ma gis tamit sa xel toogul noonu quoi. Euh, mën na nekk ci wàllu jigéen mën na nekk tamit sa wàllu liggéey allo voilà nee na mën na nekk ci wàllu liggéey bi ngay def wala mu nekk wàllu jigéen booy nekkal voilà donc su nekkee liggéey bi la nee na des fois da ngay sonn trop ci sa cadre liggéey ah bon Régis euh, ah, donc euh, allo oui yaa may dégg voilà donc da ngay guenné euh, sarax bi nga xamné soko défé aussi dina bax da ngay guenné ñetti ndabu nga def ko jouru dimanche un jour de dimanche nga def ko environ les coups de 17 h inshallah deng nga jox ko ñetti xal eh, nga euh, nga def ko dimanche environ les coups de 17 h nga jox ko ay xale yu góor ak xale yu jigéen ah laax ñetti ndab voilà nee tamit da ngay def ñaari ndoxu raxasu ah waaw fin bi quoi fin bi waxuma la commencement bi fin bi da ngay génne dangay def ñaari ndoxu raxasu premier ndox mi dangay ngay nañ ci raxasu deuxième bi nga ne nañ ci lankale ko daal ah. waaw deuxième deuxième ndox moomu nag da nga koy jël nga def ci benn euh, bu tey nga def ci xorom tuuti. Mm-hmm. léegi chaque matin da nga koy raxasoo nii rek quoi dégg nga. da nga koy raxasoo waxuma la nga diwoo ko de danga koy raxasoo rek loolu tamit soo ko defee. ci sa cadre liggéey aussi di nga gis tamit di nga am jàmm ak ñoom bu baax dégg nga parce que may gis des fois dafay mel ni daal doo leen déggoo bu baax ci cadre liggéey bi foofu. voilà léegi tamit mu def tamit nit nga tamit boo xam ne euh, ci wàllu voyage foofu tamit feeñ na mais voyage boobu tamit di nga ko dem yi mais dafa xaw a des tuuti voyage. voilà nee na nag foofu tamit dafa def sarax boo xam ne aussi war nga ko génnee su neexee yàlla li ngay génnee nag ñetti nen dong la ngay génnee yoo xam ne yu ñor la yu ñor laa la yu ñorul yu ñor nga jox ko jigéen ah yaa xam xale la yaa xam mag la mais ñetti nen yu ñorul yooyu da nga ñor yi da koy jël nga ñaan ci yàlla nga tar ci fatiya wala nga ñaan ci sa soxla yëpp li nga bëgg nga sarax ko jigéen dégg mu nekk jigéen bu xees wala jigéen bu ñuula ah. lu rouge li aussi euh, mën nga ma ko puusalaat parce que dama gisaat beneen couleur bu rouge sa wet encore. Ah? Ah? Ah, rideau la kon nag euh, danga nga janox li rideau bi xanaa. Mhm. ah léegi nooy def kon boobaa da ngay moytuwaat da ngay tourné waat. d'accord. da ngay tourné quoi parce que rouge bi dafay lëndëmal sa set. waaw da ngay tourné voilà tamit na gor gor lo aussi mën na ne ci carton yalla di nga dem ba après di nga wax waxu kër wala waxu terrain parce que daf ma won fi waxu kër wala waxu terrain su amé aussi da ngay né amna waxu kër wala waxu terrain waxal bu baax si amna kain, kañ waxu kër neew ma la da nga am kër wala da nga am terrain de ne ma nee rek waxu kër c'est-à-dire mën nga dëkk ci kër mu am ay wax amna voilà donc xaw ma nag euh, ndax yow da nga ci bokk ou pas mais damay gis des fois da nga mel ni daal nit koo xam ne da nga xaw a retiré wu daal. tu te daal même su nekkee am na ay wax foofu damay gis des fois da nga mel ni da nga réservé wu. voilà donc loolu la te puis yow wax buggoo ko te wax baaxul aussi. danga xaw a calme nag moo tax tamit buggoo ci yenn bruit yi ko parce que damay gis saa su bruit amee foofu da génn wala nga mel ni daal ko jàpp sa ñàmbur. voilà donc loolu la daal mais na war nga wut tamit jaaro axiixa nga def ko sa baaraam daal sa annulaire mais mais mais mais gauche incha allah dégg nga voilà couleur bu bleu bi dafa nekk sa yaram wala bu weex bleu ah waaw nee na de soo góor góorloo de moom am na mois boo xam ne gis naa ko de ci yow mais mois boobu baax na trop ci yow hmm. mois de août ak mois de novembre waaw ñaari mois yooyu daal mun naa ne daal loo ci xëccu mun nga ko am ci kàttanu yàlla août ak novembre waaw donc ñaari mois la yoo xam ne aussi daal mun naa ne daal euh, dafa bénéfique ci yow te puis tamit ay mois la yoo xam ne dafa lay apporter chance voilà incha allah su nekkee tamit xam nga ku ñuy wax Mohamed mën nga ma ko wax wala Mamadou da leen xam waaw Mohamed la wala Mamadou voilà kenn ki sa la. ah. sa frère. voilà donc nee na yow góor ñi nag duñ la bëgg aussi bu baax. jigéen ñi daal ñooy sa soppe mais góor ñi daal dafa mel ni daal euh, doo déggoo ak ñoom même suñ la jegee sax da ngay gis tamit doo leen déggoo. dëgg la dëgg la. ah voilà donc loolu la moo tax yow tu es trop méfiante. tu es trop méfiant quand du moins voilà tu es une personne trop méfiante mais quand même euh, nit nga tamit bo xamné ne bëggoo tamit kula yapp voilà donc yu jikko yooyu yëpp tamit dafa feeñ ci yow bu baax quoi homme de tenue bi sa lan la ah sa frère sa goro ok voilà donc euh, na ma gis daal des fois tamit day am ay wax tuuti seen diggante de allo. allo waaw nu ma gis des fois da ngeen di am ay wax tuuti. voilà neen loolu da nga koy moytu quoi dégg nga. voilà donc loolu la daal te puis tamit ah. lenn tamit am na sa wàllu santé euh, gis naa tamit des fois da ngay stressé wu bu baax sax parce que dama woon ni carrément dangay ngay sonn. voilà donc euh, foofu tamit laaj na ngay def ay marche ah marche comme exemple sport quoi. Mm-hmm. da ko doon def mais da nga ko arrêté. voilà donc ce que mënee def tamit diko reprendre diko def baxna quoi même su nekkee 30 minutes la sax dans la dans la journée baxna na kooku aussi dafay def tamit sa yaram nekk en bonne santé hein ah. Inshallah. inshallah kon ma lay gërëm di la sant. jërëjëf voilà donc du delluwaat tax yéen di wax ne émission bi ça continue jusqu'à présent donc mën ngeen woté ci numéro bi. Allô, oui. na def allo. allo man maa la déggul bu baax na def ça va. Ah, naka yaram bi. ah. xaar mu génn dégguma la de na def. voilà na ma gis tamit euh, ci wàllu liggéey. Hmm? liggéey liggéey liggéey place. allo waaw dama gis ngay xalaat ci wàllu liggéey wala soit liggéey boo nekk. waaw su nekkee yaa ngi ci nee na foofu da ngay génnee sarax. waaw waaw mais liggéey la rek. allo. waaw su nekkee yaa ngi ci liggéey bi nee na da ngay génnee sarax. waaw sarax bi ngay génnee mooy euh, nanga nga génne tamit ñetti ndabu laax. ñetti ndabu laax. ndabu moom ngay génne nga jox ko ay xale yu góor ak xale yu jigéen nga def ko jour jeudi comme bésu tey bi. voilà donc moom na génnee ñetti ndabu laax mu def ko jeudi mu jox ko ay xale yu góor ak xale yu jigéen su ko defee aussi ci wàllu liggéey commercial boobu muy def incha allah nee na loolu dina sotti kon maa ngi koy gërëm di ko sant. voilà donc di delluwaat alo yi. salaamaaleykum. salaam sëñ bi na nga def. ñu sant bu baax a ay xewal yu bëri. amiin tey bokk sëñ bi. waaw voilà donc li mu njëkk wone wane aussi xam naa ne lii moom gis nga ko wala nga dégg ko dëj. ku gaañu woon. ku gaañu woon. waaw déggoo ñu wax la annoncé la benn dëj dans le passé. waaw waaw fan yële waaw. fan ah, nee na nga génneel ko saraxu même su nekkul sa mbokk wala mu nekk sa mbokk danga koy génneel ñetti paquetu biscuit. ma génneel ko. ñetti paquetu mbiskit ñetti paquetu biscuit. Ah, nga tar ci Fatiha benn yoon. ñetti ñetti paquetu biscuit laa la wax ah benn Fatia Fatia benn yoon. waaw benn Fatia ak ñetti paquet biscuit. waaw ak onze ul moom tamit dem na mais ñetti paquetu biscuit lay saraxee ak ah, benn Fatia bu muy wax ak onze ul walaaw aussi bu muy récité mu ñaanal ko mu ñaanal boppam. donc loolu aussi su ko defee tamit euh, yàlla dina ko dimbali bu baax a baax a baax ci li nga xam ne tamit mën naa ne tamit des fois daf ci am ay jafe-jafe. donc moom dina am lu muy lijjanti temps yi mu mel ni wàllu xaalis la donc su nekkee mu may dégg aussi na génnee saraxu kànja rek mu saraxe ko loo ci mën baax na muy liibar muy kilo loo ci mën baax na nga jox ko jigéen bu xees soo ko defee rek incha allah loolu dina sotti kon maa lay gërëm di la sant allo oui. allo. soxna si nanga def. <clears throat> naka yaram bi. ça va may ma tiire carte y'a. Hein? Waouh. excusez-moi. Allô, soxna si. waaw. voilà donc euh, le rouge li euh, soo ko mënee déplacer nga déplacer ko. Le rouge. waaw couleur rouge dindil mako. waaw. dindi nga ko. danga ko sol xanaa. Ah? danga ko sol. déedéet. ah mais dafa yàgg de dindi ko. ah. dindi ko. <laughs> nag daa bëri rouge nag moo ah kon nag duñu mën a dem de. <laughs> parce que rouge bi moom dafay yàq sa. ah. ma ne ci gënoon feeñ dindi naa ko. waa ah, léegi euh, su nekkee dafa bëri rouge foofu du seet bi dangay génn foofu yëpp ah. waaw kon xam nga déplacé wu. ah voilà léegi tamit mu def tamit nit nga tamit boo xam ne yaakaar yu tas bëri na ci yow lépp looy am daf lay bett. waa te pi euh, au niveau ci wàllu kilifa yi aussi dañuy bëgg toujours yow tamit euh, nga réussir ci li nga xam ne moom ngay def. waaw. dañ bëgg nga réussir nga góor góorlu nga réussir. voilà nee na su nekkee lu bleu mu ngi foofu nee na di nga réussir ci kàttanu yàlla bleu. la couleur bleue mu ngi sa wet wala nga sol ko nee na di nga réussir ci kàttanu yàlla mu ngi fa. la couleur bleue mu ngi fa. waa am na couleur bleu de. voilà nee na di nga réussir ci kàttanu yàlla mais nag yow soo doon def comme exemple finance wala gestion wala nga xam ne lu wàllu lool ngay jàng wala comptabilité nee na di nga réussir. Mhm. voilà nee na tamit nit nga tamit boo xam ne mun naa ne ci côté jigéen yi soppuñu la bu baax. <coughs> waaw loolu moom la. soppuñu la bu baax dafa mel ni koo nekkal après euh, doo leen yàgg mu dem. Mhm. waaw góor ñi nag <coughs> excuse euh, góor ñi nag ñoo la sopp bu baax. ana sa copain bi nga nekkaloon mu mel ni daal ça ne va pas du tout. daf la trahir wala yaa ko trahir. non non. danga ko mere. non dañoo déggoo waaye dama ko mere. voilà donc moom su yàggee tuuti aussi mën naa ne eh, yow di nga ko bàyyi wala moom mu lay bàyyi. Mhm. parce que na ma gis tamit déggoowul leen bu baax ma. Ah? seen wax déggoowul daal. waaw voilà donc couleur bu marron aussi mi ngi sa wet foofu su nekkee mi ngi fa danga may ne rek mi ngi fa waxuma la nga dindi ko. waaw ñu ngi fa. loolu mooy wane tamit relation yi ngay am yëpp des fois dafay yàqu. Mm-hmm. waaw nit nga nag boo xam ne tu es trop sentimental. Mm-hmm. yow soo xasee bu bëgg nit rek jeex na. Mm-hmm. mais nag dangay ngay waate yow moom dangay ngay nga baal ma nag ci wax. <laughs> Uh-huh. yow doo bëgg de da jékki-jékki rek fan nit ki mën nga gis nit ki nii sax fan ko lu tax loolu wala noonu nga mel. ah xaw ah, xam nga kañ. yow lay seetal. waaw li ngay faan yi na de. dëgg la mais nag il faut être sincère aussi dans la vie parce que damay gis tamit uh, am na góor boo nekkaloon mais dafa mel ni seen diggante aussi wax yi bari na te puis tamit relation bi aussi dafa monotone donc su demee bu mu yàgg tuuti relation bu day jeex. voilà donc loolu la quoi mais nag uh, lenn tamit gis na ko aussi mooy da ngay nëbb sa xol lu tax so soo nekkee góor doo ko wax li nga xam ne moo am wala nga bari ay far. deugala aifar. nga bari ay far. déedéet. ah si ñaari ñaar ñaari goor de laa fi gis. ñaar fi gis. waaw. kenn ki dang koy nëbb sa xol kenn ki mom dafa melni tamit mi ngi non dal ngi ñaar ah. génn maa ngi ñaar ñëpp. da nga leen bàyyi. kenn ki rek nekkal. ah kon nag di nga gisaat keneen ki de parce que la wax. wala kenn ki nga bàyyante ak moom ba pare nekkat ak keneen voilà loolu la ma wax donc ci wàllu relationnel nee na ça ne va pas du tout ah c'est morose voilà pour dafa morose quoi voilà donc euh, am na nag leen lu may gis si yow mooy il faut faire très attention hein. mooy euh, nit nga tamit boo xam ne euh, des fois tu fais des jeu ci comme SMS nii damay gis des fois da ngay lancer SMS mais des fois li nga ciy wax doo ko def sa biir xol danga koy waxee noonu rek loolu tamit baaxul. yaa may dégg waa lu tax ngay def loolu comme exemple nga wan nga bind lu neex mais fekk li muy bind gëmoo ko carrément. <laughs> ah.

d'accord te boobaa tamit yow bëgg bëgg kenn da ngay même ku ki dafa la bëgg yow da ngay dem ba ko bëgg. parce que sincère et puis tamit toujours ay euh, amalgame am ci aussi je vois que xol bi dem ba trahir après même su sax lu sax yow da ngay dem ci ne mënul voilà donc aussi euh, na da nga croiser les jambes ou bien les bras. non non. ah lo croisé dama gis lu croisé wu de. <laughs> non non croisé wu ma ah sama loxo dama ko teg sama ndigg. ah ok voilà kon donc loolu la donc loolu aussi am na lu may woon aussi ah parce que da nga nekk nit koo xam ne aussi mun naa ne ci kàttanu yàlla mois bi nga xam ne moo gën a favorable sa mois yi jàpp ko décembre mm. janvier février. janvier février. voilà décembre voilà même soo ci judduwul aussi mun naa ne tamit jege na wala mu nekk daal ne aussi ay mois la yoo xam ne daf marqué. voilà donc loolu aussi nee na ci sa xel. ana Abdou mhm. wala Babacar wala Papis. ah lu tax nga rétan parce xam kan kan la ci ñett ñooñu Papis la wala. waaw. voilà kon Papis jàpp ko bu baax mais nag yow dangay ngay nit de wax naa la ko loolu moom tànk yaa ngi ci jikko boobu moom dara du sotti de ci sa côté. waa loolu tamit da nga koy euh, dangay moytu loolu quoi dégg nga. ko bàyyi. waaw da koy bàyyi da bàyyi loolu. jikko boobu moom da koy jël teg ko fële. changé waat jikko pour nga mën a nekk ak nit ñaa ah. d'accord voilà kon maa lay gërëm di la sant. waa euh, gisoo ci wàllu yoon wala dara. voyage xanaa ñëpp bëgg a voyager su <laughs> ñëpp voyager dëkk bi kenn du fi nekk de wala. waaw ah, dëgg la kon xaar ma xoolal voyage ah. allo. oui waaw côté voyage nee dina bax mais tamit dina am ben wajur bo xamné mom du bëgg nga dem. deug la. sa papa la wala wala mama la. côté papa la. waaw mom bëggul nga dem de même so ci bëggoon sax mom day ki euh bañ carrément. Mhm. lool dal la ma wax. donc fofu aussi lenn la lay wax aussi moy euh, di nga bëgg dem mais tamit euh, pa bi dal moy xawa a moy mooy affaire bi dal Mhm. mais su nekkuloon paa yu dem mom mën naa ne di nga dem. mais décision am ci mom lay jógee aussi. d'accord donc ça sera très difficile motax tax mënuma la wax tamit sarax bo xamné aussi mën na la dimbali wala mën na la yóbbu. donc lépp ça c'est la volonté euh, du papa quoi. d'accord waaw moom am décision bi ah. voilà kon maa lay gërëm di la sante. merci beaucoup. jërëjëf. voilà donc di wax ni euh, téléspectateurs yi euh, émission bi léegi la jeex aussi donc di nuyu tamit mbokk yi nga xam tamit ñu ngi bëggoon dugg ci ligne bi aussi mënuñu dugg aussi maa ngi di euh, bu baax di mbokk yi nga xam tamit dugg nañ ci ligne bi aussi maa di jaajëfal bu baax a baax a wax ni tamit mbokk yi tamit nekk ci hôpital bi aussi maa di hôpitaux yi aussi maa di ñaanal yàlla malade yi yàlla na leen yàlla yëkkati fëgg seen ñu mën a jóg dox seen ay soxla aussi incha allah di nuyu tamit mbokk yi nga xam tamit ñoo nekk ci prison bi te caabi féete leen ginnaaw aussi maa ngi di yàlla yàlla na leen leen yàlla génnee ñoom ñëpp aussi ci kàttanu yàlla di nuyu tamit kilifa réew mi en même temps aussi gouvernement bi aussi maa ngi nuyu ñëpp aussi di leen wax ni tamit euh, di leen ñaanal yàlla yal na leen yàlla dimbali ci seen wàllu yoonu yokkute bi nga xam ne moom la ñuy ñaan aussi di nuyu tamit sama mbokki LCS yi aussi euh, di leen nuyu bu baax di nuyu ñëpp aussi fàttewuma kenn yal na yàlla jàppale ñoom ñëpp aussi képp koo xam ne aussi am na ci loo xam ne aussi rafet na ci biir ko yàlla def ci di gërëm di leen sant ba dimanche